di leen baal wàq te leen ko baal tey ñaan sunu boroom yàggal kilifa gu mag gi ci sunu kanam te wéral ko eh, ak moo kilifa yëpp yàggal nu ci seen ginnaaw ñu ànd na ñoom ànd yoo gën a rafet waxtaanu tey wii ay kàddu la yu bàyyi ko ci kilifa gi ak Cheikh Mouhamadul Muntaqa xafisahullahu wa raahu yu di ko jot li mbooloo mi mu aju ci li xew ci jamono muy di gi nga xamné ne eh, xel yépp ci la nek mu daj aduna ba yalla dogal mu dugg Sénégal mu am ay taxaway yo xamné waras nako ci taxaw mo waral sëñ bi joxe ndigal ci jot di kaddu yi kon kaddu yi kaddu yi bi lañu koy jot li kem katan ñu bëgg ko tënk nak ci ñaanti tombu bi ci jëk moy sëriñ bi na mi ngi jox ndigal mbooloo mépp ci lii nga xam ne moo xew mu yore di gi tegtal ak ndigal ak dénkaane laabire yi nga xam ne ñiy saytu wér yaram ñi ngi ko ciy joxe nee na mi ngi digal ñëpp ñu topp laabire yooyu ak dénkaan yooyu ngir mën a aaru ngir mën a fegu te loolu ñoom ñu ngi koy tënk rek ci ñu wàññi jaxasoo yi nga xam ne yëpp yu mënta ñàkk la ñu wàññi ko euh, te itam fonk set bu baax a baax fonk set bu baax euh, rawatina saa yoo xamee ne nit ñi ñu ngi jëm ci mbooloo baa ñu jóge ca bépp matuwaay boo xam ne dana tax euh, nit ki mën a fegu ñu jàpp jël matuwaay boobee ci loolu daayiratu muqaddamatul xidma jotoon na ndigal ci sëriñ bi ñu waajal ay ay jumtukaay yoo xam ne ay fegukaay la ah, yoo xam ne ñu ñëwul ñëpp ci barab bi ñu ngi leen diggal ñu jëfandikoo ko ni ñu ñu koy santaane te loolu lépp dugg ci biir fegu gi ah, kon ñu fonk cet gi bu baax fonk itam wattandiku bu baax ak ah, waggar ci fegu ak moytu bu baax a baax ndax loolu moo dëppoog li lislaam santaane ci nit ki di jël ay matuwaayam di jaar ci sabab yi nga xam ne sunu boroom daana ca lëkkale ay dogalam sunu boroom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi wax ci benn xadis ne laa adwa wala tiyarata walla hammata wala safara wa firra min al majzumi kama tafirru min asad kon ci biir xadis bi digle na ci ne képp koo xam dafa yor jàngoro juy wàlle nañu koy nañu moytandiku di jaxasoog moom di di ko di ko wattandiku bu baax a baax a baax am na beneen tomb bu aj ci xadis boo xam ne dañ ñëw ci tomb bii di ñëw kon daal mi ngi jox ndigal ñëpp rek ci ñu dëppoog laabiire ak ndigal yi nga xam ne ñi saytu wér gu ngi koy digle ci jàngoro ji ngir mu bañ a law ngir mu bañ a tasaaroo ngir sagu uh, ak wattandiko ak jëfandikoo sabab yi nga xam ne lislaam dafa santaane ñu jëfandikoo ko te loolu itam lu sëriñ bi sëriñ bu mag bi santaane waxoon na ne ولا إن تكن ملتفتا بزي إن يكن ملتفتا بزي فقد تعين الجمع آه، لدى من قد نقد وهو فراغ القلب منها الاتكال مع مباشرتها بالامتثال لأنه, لأنه أمر بالفرار من سبب الهلاك والضرار عباده لسبب السلامة فاجتنبن موجب الملامة وهو فرار يا أخي من قدر ربي الورى لمثله بالحذر sëriñ bi nee na nit ki dafa war a boole wakiirlu ak sabablu mu ne suñ boroom digal na jaam ñi ñuy daw bépp sabab lépp loo xam ne lor bu ñu ko defee lor mën na leen caa fekk ak alkande ñuy daw loola jëm ci lu di tax mucc ak leen di tax aaru mu ne nag fegu googu daw googu ngay daw li lay lor di jëm ca la lay musal boo ko defee yaa ngi daw dogalub yàlla jëm ci beneen dogal ndax boo jonjoo woon nag la lay lor boo loroo dogalub yàlla la waaye soo to bu muccit mucc gi dogalu yalla la kon sun borom diglé na nit ki di watandiku lepp lo xamni ne lu ko lor lam diko di kon sëriñ ma ngi joxe ndigal ci gogu wet bu baax tombu baax bi moy ñu mi ngi wax ne nañu dëgëral pas pasi yi te wéral ngëm gi ta xamne yalla moy bur bi nga xamne lepp ci loxoom la nek mom moy loré moy jariñe lépp lu am it moo koy dogal inna kull inna kull shay'in xalaqnaahu bi qadar wa kullu shay'in indahu bi miqdar amul dara luy am te yàlla dogalu ko kon jàngoro ji itam nañu moytu bu baax waaye nañ gëm itam ne ab jaam la boo xam ne du dal ci kaw jaam bu ko yàlla joxul ndigal mu dal ci kawam képp ku yàlla digalu jàngoro ji mu mu dal mu dal ko kookee jàngoro ji du ko dal kum digal mu dal ko it koko lay dal koko it la ko ca borom ba digal lay def bu fekke sun borom wut faatug jëmmu ja ci dalu jangoro ji itam man na dal nit ki ci faatu kon nit ni nana ñu degeural pas-pas yi dalal xel yi ta rafetal njort yi ta and ak sago boole ci gëm yalla nak akuk ak euh, daluk xel dalom mbir yëpp ci yalla xamne nak sunu borom moy bur bi jangoro ji du yalla bopam jo xamne Euh, day doxee nu mu ko soobee di def lu ko soob yàlla mooy def ay dogalam sabab rek la ci biir sabab yi ku yàlla dogalut mu nar koo dal du ko dal kum dal it bu yàlla nangu dogalut mu nar ko faat du ko faat kon nañ ci boole gëm yàlla bu wéra wéra wér mi ngi wax ne qul lan yusibana illa ma kataba llahu lana wa mawlayna wa ala llahi falyatawakkalil yow yonent bi sallallahu waxal ne ñun dara duñu dal lu dul lu yàlla dogal ne moo ñuy dal ndax yàlla mooy suñu boroom bi nu moom ñu ñu wéeru ci moom di ko ragal di ko yaakaar te nee na ñi gëm yàlla ñëpp dañoo war di wakiilu ci yàlla mooy dañoo war di bàyyee seen bopp yàlla te wóolu ko te xam ne njariñ ak lor ci moom lay eh, ci moom lay bàyyi ko sëñ mag bi duñu wax ne wa kullu ma asabana lam yakuni yuridu an yuxti ana min mihani wa kullu ma axtaana lam yakuni yuridu an yusibana fi zamani mais lépp loo xam ne dal na nit suñu borooma nam mutoon mu ñàkk koo dal waaye lépp loo xam ne itam nit mucc na ca suñu borooma dogaloon ne na ca mucc kon lépp mi ngi ci dogalub yàlla mu ne kon mi ngi bëgg ñu delluwaat bu baax ci pas-pas yooyu gëm yàlla bu wér-wér jaar nag ci sabab yi li war lépp ci waggaraku mooy toog wattandiku ñu di ko def waaye nañu boole ci ak gëm yàlla xam ne dogal dina nag ci loxo yàlla la nekk njariñ ak lor yi ci loxoom la nekk ñu dalal xel yi rafetal njort yi te ak sago ak dal tomb ñetteel bi itam nee na nanu delloo siwaat sunu xel te seetaat sunu bopp ndax ak jullit wala sax doomu aadama lepp lu ko dal ci ab safaan na xamne moko tek bopam mo am lu mu def ci digeenté mak boromam lu mboorutoon a def ba tax dogal bobé dal ko wa ma asaabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yaafu an kasir ci borom wax ci alquran neena lepp lu len dal ci luy dalé di loré yalla ngi len ko tek ci sababus lu ngeen def ci seen seen jëm lu ngeen defal seen bop kon lepp lu dal nit ki ci xeeti nattu ak musiba ki bala ki jangoro ki yop ak yépp ak jafé jafe ki xat-xat ci aduna ji lolu ni jambi bi ñëk def mo dafa war ñëk njëkk a dafa ci bopum tumal euh, xamne ne def likodal dal ni mom moko def moko tek bopam mo def lu mu wurtu def ba yalla fayako ni ko dal mu ne kon ñëpp nañ delluwaat seetaat sunu bopp seetaat sunuy pas-pas seetaat sunuy doxalin ci sunu digganteeg sunu borom ak sunu digganteeg suñu moroom bi jaam jubbantikuwaat euh, tuub tuub gu sell dellu ci suñu borom kenn ku nekk wéetal sa bopp nga sa borom nga wéetal sa sa wéetal sa borom tuub mboolem bàkkaar ak ñaawteef ak safaan yi nga xam ne yépp def nga ko nga nangu ne yaa ko def tuub ko te ñaan suñu borom jëggal la kon sëriñ bi jox na ndigal neen ñëpp nañ seetaat suñu bopp xoolaat suñuy doxin euh, lépp loo xam ne gis nañ lu ci rëkk la ak lu ci jubut lañu jubbantiku tuub dellu ci suñu borom tuub suñu bakkar yépp yépp yépp yu dox suñu ak moom ak yi nga xam ne yëpp ay àq la yu dox suñu ak suñu moroomi jaam euh, ñu fexe ba balantay àq kenn ku nekk fas ci xolam ne jéggal na mboolem ñëpp jullit yàlla yëpp jéggal na leen bépp àq bu ñu ameel kenn ku nekk fas loolu ci sa xol jéggal sa moroomi jaam yëpp tey tuubal sunu boroom ci mbooleem eh, ay rëcc rëcc ak i njuumte ak i bàkkaar yoo xam ne def nañu ko ñu dellu ci yàlla tuub tuub sel te ñaan ko mu jéggal nu tomb bu ñeenteel bi tey bi ci mujj mooy nag li nga xamne moy mooy ngànnaayul jullit bi nga xamne ne gëm na ne yalla moy boromam te moy lepp lu am koy dogal kàttan géppit ci loxam la nek mu delu ci yalla momu ñu dellu ci yalla ñaan ñaan ko toroxlu euh, ñaan bu baax sunu borom euh, teggil ñu jàngoro ji nga xamne mom la tek mom la indi ci aduna suñu borom ko musal ci ñim dalul ñëpp te ñim dal yàlla wéral leen te jeexal ko it ci àdduna sépp rek génn ko ci suñu réew génn ko ci réew jullit yëpp waaye génn ko ci àdduna sépp mu jeex tàkk ñëpp toroxlu dellu ci yàlla ñaan ko ndax ak jullit dafa di dellu ci yàlla di ko ñaan waxtu nekk ndax ñaan jaamu yàlla nit sax warut a nekk ba nit ba na ci jafe-jafe baa mu am itti dool di ñaan waaye ñaan ci boppam rek ab jaam da ko war def saa su nekk ngir di yegle di ngir ngir xam gu muy xam ne moom ku lott la ku tëli la ku aaja so ku soxla borom la ci waxtu nekk moo tax borom bi wax ne wa qaala rabbukum ud'uuni astajib lakum inna yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin wax na yonente bi salaa wasallam ne ko waxal wala mu ne suñu borom seen borom nee na ngeen di ko ñaan ngeen di ko ñaan kon dana leen wuyu ngeen di ñaan kon dana leen nangul ñi nga xam dañoo reuy nag ba duñu ñaan suñu borom bi ko wan ginnaaw nee na ñooñu reuy reuy lu googu ba duñu nangoo ñaan seen borom neena na sax bo ëllëgee suñu borom da leen yóbbu sawara toroxal leen ngir rëy googu nekkoon ci ñoom ba nangu ñoo ñaan mu ne wa isa saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu daawata da'i isa daani mu ne wax yonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko bu la jaam ñi sama jaam ñi laaje ndax ku sori laa wala ku jege laa na nga leen xamal ne man ku jege laa koo xam ne képp ku ma woo man taw wéetal ma dana ko wuyu nangul ko la nga xamne mom la ma ñaan eh, kon ñu neena ñu delu wat kon toroxlu delu ci borom ñaan ko ñun ñep ñu talal suñu loxo borom eh, toroxlu ñaan ko mu teggi lor ji ta teggi jeneen lor ju mën don tam te ñoo di li mboolem yiw ak ngeene li nga xamne yep yaakar nañ ko ñaan ko dal mu mu jañal nu te dil nu eh, ngir solo si nga xamne ñaan am nako euh ci ab jam sun borom mi wax sax ne nit ki sa yu deme ba seus ku ku lor ku dem ba seus nga xamne amatul ci fi ci fi mu tollu mom bopam mu mu bu delo ci don donte sax ab yéefar la yalla day nangu ak ñaanam ndax yermandem ci matali ji amma yujibul mutarra iza daahu wa yakshifu suu wa yaj'alakum xulafaa al-ard a ilaahu maa Allah qaliilan maa tazakkaruun suñu borom nee na moom mooy ki nga xam ne bu nit sësee bu nit amee njàqare ba sës ba amul fenn fu mu jëm ak menn pexe mu mu def su ko ñaanee dana ko wuyu te boobu boobaa dootu ci xoolati kii jullit la wala kon moom mooy teggi naqar yi ak jafe-jafe yi ak musibe yëpp yàlla moo koy teggi euh, kon nee na nañ ñaan yàlla moomu euh, sunu boroom yonent bi saa wax na ne xassinu amwaalakum bi zakaati wa daawu mardaakum bi sadaqati wa aidu lil balaa'i bi du'a nee bu ngeen bëggee seeni alal di ñëw da leen génne asaka bu ngeen amee ay nit ñu wéradi na ngeen sàkk sarax ñaan yàlla teg wéral leen waaye nag bu ngeen amee ab nattu bu tege ci seen kaw seen waajtaay seen gànnaay li ngeen di jëfandikoo na nekk ñaan kon addu'a usilahul mu'min kon ñaan moy ngànnaayul nayul moo tax sëriñ bi doon wax ne isi du'a yanfa maytan fil qubur wa al hayya wa yujibul uyur neena ñaan dafa am solo serign mag bi mu ne ñaan dafa am solo ndax ñaan day jariñ sax ka faatu ba nek ci bàmmeel ñaan da koy jariñ man na tax yalla jéggal koy bakaram man na tax yalla yërem ko man na tax yalla wayfalal ko ay jafe-jafe yu mu nekk waaye na kiy dund ci àdduna itam ñaan da koy jariñ da koy jariñ ci di ko tànqal ay lor ak di ko ñoddil ay njariñ yàlla dogal lor yu yàlla dogal moo ca mucc ak lor njariñu yàlla dogal mën na ko am ñaan da koy day ñoddi di jañ e, ci coobare yi suñu boroom ñaan it day waral nit ki am tuyaaba ci ñaan gi kon mu ne loolu itam nañ dellu ci suñu boroom ñun ñëpp rek toroxlu ñaan suñu teg teggi euh, far njàqare li nga xam ne moom la jur yépp di yëg ci seeni xol te di ko tiit ak moytu kon lii mooy ci tënk rek mooy kàddu yi sëriñ bi wax ne nañ ko jottali mbooloo mi nee na nag lii ay ndigalam la yu muy santaane nañ jokk ñu jottali ñu jottali ko liñ doon wax ci xadis bi ñu tàmbalee la adwa jooju buñ tàmbalee dañ waxoon ne dañ ci dellusiwaat ci xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne li yéefar yu njëkkee jàppoon ne jàngoro buy wàll nit euh, moo koy defal boppam nga xam ne daal jàngoroom bu ñëwee rek ku ku ku ku ku ku jonjoog ka mu daal rek mu daal koy wàll ca saa sa te du am euh, amul dara lu koy fekk mu ne mbir mi nag demewul noonu euh, yàlla ci boppam rek moo yor ay dogalam di dogal ci ay jaamam kon jaxasoo ak ku yor jangoro bu soobee yalla man na ko def muy sabab buy tax jangoro ji joge ci kimu dal dem ci kumu don ton yalla man mën na ko def sabab bu ko soobee waye bu ko soobee it jaxaso bi man na am te eh, tokhub jangoro ji du am kon nak ñu gem ne kon yalla mu wax ne kon yalla ci bopam moy kiy tege moy kiy tege li ñuy gis ci kaw nak yépp ay sabab rek la yu yi lëkkaleel ak ak dogalam lolu moy pas-pas bi nga xam ne moom la ñu lislaam bi jàngal kon ñu fàttali ne sëriñ baa ngi ñuy digal ñu tënku ci laabiire ak dénkaane yi nga xam ne ñiy saytu wér-gu-yaram nit ñi ñu ngi koy laabiire ak di ko dénkaane ngir ñu mën a mucc ci jàngoro ji ak uh, ñu mën a fekk ak lawam uh, loola lépp lu ci ñiy saytu wér-gu-yaram wax rek nee mi ngi digal ñëpp ñu tënku ci dénkaan yooyu ak laabire yooyu boole ci waggar gu mat sëkk euh, ci yi ñu war a def yëpp daal ñu def ko waaye itam ñu boole ci gëm yàlla gu wér ak daluk xel ak rafet njort ak wakiirlu ci yàlla te xam ne jàngoro ji ab jaam la boo xam ne du dal moroomam jaamam mu ko yàlla joxut ndigal ci mu dal ko ku mu ko jox ndigal mu dal ko it fa fa ko ci yàlla yem loola la koy la koy fa yem wa ma kaana li nafsin an tamuta illa bi idnillah kitaaba mu ajjala amul benn bakkan buy faatu lu dul ci coobare suñu borom ak lay amee euh, tey day fekk suñu bindoon na digub nit ki fa mu war a yem ba bu ca àggee du ko mën a weesu mu nekkoon kon ñu gëm yàlla bu baax te rafet njort dara xel yi ñetteel ba it mooy euh, ñu yàddaat suñu bopp xoolaat suñuy doxin ak suñuy toogin tuub dellu ci yàlla bu wér a wér wér ndax ab jaam lépp lu ko dal ci lu ko lu koy lor mbaa lu koy tiital ci moom la bàyyi koo fa maa yusibuna min ar-razaya bi kasbi aydina min al-xataaya ñett ñeenteel bu ma ñu dellu ci yàlla lu ñaan kon daal lii mooy kàddu yi nga xam ne moom la sëriñ bi waxoon ne nañ ko jotli li ñu doon ko jéem a jotli ci suñu kàddu bopp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di ñaan suñu borom jeexal jàngoro ji nag jeexal ko ci àdduna sépp te jëkk koo jeexal ci sunu réew mii ak ci réew jullit yépp waaw te yàlla wàcce jàmm yàggal fi kilifa yi yàggal nu ci seen ginnaaw ñu ànd ak ñoom ci ànd bu rafet wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu